Euh, di massawu sénégalais yëpp ci xew-xew bii nga xamante ni bi am na ci suñu mbokk yi Tiwaawoon euh, mu nekk euh, aw waaye nag ñu di ko sante sama borom delluwaat ci la maam Thierno Birahim waxoon sëriñ Touba bi ko Serigne Touba laajee ni ko Thierno loo bëgg ñu defal la ko mu ne ko lu sama borom dogal mu neex ma kon ñun cant googu yëpp malgré ci dundinu àdduna aw lañ koy jàppe waaye Euh, ñu wëlbati rek def ko mu dëkk ak cant ndax sama boroom moom lu mu def jëmale ko ci ab jaamam rek euh, dafa fekk mu doon lu gën ci moom kon ñu wëlbati ko delloo cant googu sama borom di ko ñaan mu dolli ñu yërmande ci yërmandeem ndegam moom lépp lu xew ci yërmandeem la koy xewal yërmandeem jooju noonu ñu ngi koy sàkku ci moom di ko sàkkul mboolem jullit ñëpp di ko sàkkul mboolem doomu aadama yëpp euh, yeneen xew-xew yi nga xam ne mooy xew Sénégal lu jëm ci wàllu niñ ko xamee ñu koy tuddee insécurité yeneen ak yeneen agression yi yeeg euh, maanaam rey yi nga xamante ni bii ñu ngi koy dégg yëpp muy am ci réew mi yëpp euh, di ko du ñu wax ni dañ koy naqarlu ndax ab jullit moom amul sañ-sañu di naqarlu waaye mu doon ay tiis yu dal ci nit ñi yoo xamante ni bii yëpp dañ koy jël rek delloowaat ko ci coobare sama borom ja euh, di ko ko sante waaye tamit di massawu ñi nga xamante ni bii loolu dal na ci seen kaw. ñi nga xamante ni bi tamit am nattu la euh, sama borom teg na ko ci seen kaw ba loolee noonu xewee ci seen i loxo yàlla sama boroom jéggal leen euh, di ñaanit sénégalais yëpp ñu ñëpp ñu maasee doolu su ñuy xel rek dalalaat suñuy xol euh, ñaanal leen yàlla te ñun tamit ñu jéggal leen te ñu jéggalante ci suñu biir te gën a dolli yërmande ji di balo ak mbokki sénégalais yëpp